léegi loolu bi moom xam na ni lu garaaw la def Macky Sall moo tax bi ñu ko annoncé ba léegi fu mu mën a taalee ma ngay taal su taalee fii mu mu të tàkk mu taal fële jekki na jekki na day andi premier ministre ñun suñu yoon newul ci premier ministre ñun suñu yoon newul ci premier ministre Macky Sall lu muy def ak lu mu dul def ñun toppatoowuñu ko bu ko neexee mu far ba mu koy riitil suba bu ngoon premier ministre ñun loolu yëngaluñu ndax bi muy génne poste premier ministre moo toog ba mu neex ko mu ne moom léegi moom dong kot doy na pour yor réew mi nee na moom kot doy na pour yor réew mi tey nee na day delloo si premier ministre te bokk na li mu ko layee nee na comme day dem Union africaine dootul am jot pour Sénégal lu doy waar a ngi noonu lu doy waar man nag yërëm naa Sénégal ndax koo xam ne bi muy nekk fii yor mandat Sénégal rek mënalul dara réew mi tey mu naan maa nga dem Union africaine ñaari fan yu ne mu jël avion naan day dem défendre l' Afrique l' Afrique naa kaa se d' abord doog naan maa ngi dem défendre seen défendre yëpp mooy on a kaa nañ jox ay droits de tirage spéciaux nañ ñu nañu def ay fonds pour jàppale Afrique alors que yaa ngi jaay suñu pétrole jaay suñu gaz jaay suñu géej jaay suñu zircon jaay suñu suuf si ba pare di yër di wër di yelwaan loolu mooy gouvernance Macky Sall bi mu defee loolu sottiwul kenn fulaalu ko. dégg naa sax ñu ne léegi xalifa Sall la ñu bëgg def premier ministre <laughs> monsieur le premier ministre bul ma fàtte nag donc bi mu xamee ni loolu sottiwut mu génne yeneen ak yeneen <laughs> non loolu day baax rek comme ça dañuy toog fële toog fii donc bi mu génnee ci loolu mu mu mu mu ne léegi Euh, amnistie delloo seet waxu amnistie Khalifa Sall ngi ni toog mosu koo ñaan amnistie grâce sax wax ñaanu ko ko moo toog ba mu neex ko mu signé grâce am ñu ñëw yenn ko forcé ne ko da ngay génn moom day gas ay kanam dugg ci guutam ba pare bëgg nag bu ciy génn nit ñu ñëw toog ak moom pour mu génn ci fi mu ne nii lenn rek la Macky Sall bëgg lenn rek ma wax leen ko mooy nu muy def ba toog ak ñun ñii dialogue la bëgg wax na ko sax keroog ci bi muy wax ak xaritam ya comme médias yi fii moom du wax ak ñoom nee na il est prêt à envisager amnistie wala réhabilitation loolu lu bees la ndax bu njëkk ba amnistie rek la waxoon réhabilitation mooy révision procès mais loolu yëpp sa doit se faire dans le cadre jalo dialogue goo xam ne woote nga ko fi woote waat fi woote waat fi lépp xëy rek France pour moom naxe mbaxay la ndaxe mbay nu muy dajalee nit ñi ñu ne ña ngay waxtaan mu xëy daal ci signé lu ko neex